dalé nak jamm sen sen Production di ñëwaat ak yeen nag lii di sen série femme sénégalaise sama gaay nak ñu ñëp gis na ni ñu démé ndax euh, so xolé soxna bator pour l'instant xaalisu Marlo bi rek la tek bët pour dal di koy euh, fokati pour euh, fay li nga xamantene mo nek nekk borom bobu lay ci contre mom ak serigne bobu mu nañ nak lool yag na di wax sama vidéo néna soxna bator pour l'instant dafa talutoon khalis bi mais bis bu ko talé dina tourner wu mom ndax yag nañ gis ni num ko bàyyi xel ba tax nak pour l'instant nak amul lenn lu muy fexeel xaalisu jaamur bi la nekk di euh, ut pexe pour def nii moo tax nag pour l'instant génn na gaale bi pour tàggoo au matin pour gars yi ne génn na gaale bi alors que ni euh, ñib dugg si waat na si biir kër gi pour daal di am li nga xamante ne moom la bëgg. sama gars yi nag ki di euh, Mariétou bis bu deful attention soxna boto mun na koo gaañaale sax ba mu suy jël xaalis ndax soo bàyyi xel que ni soxna boto pour l'instant remboursé li nga xamante ne moo nekk euh, bor boobu noonu rek mu amee si euh, sëñ bi la bëgg moo tax nag Marlo ba ba ko Mariette waxee kaa ma dellu la xaalis waroon na koo jël denc ko si nga xamante ne moo ne si néegam bi yaakaar naa foofu a sûr mu bàyyee kii di Mariette ndax mun nañu euh, soxna Batoor daal dinay pénétrer une fois si euh, néegu kii di euh, Mariette pour daal di jël li nga xamante moo ne xaas bi yaakaar naa pour mu defaat ko du doon lu métti si moom moo tax sama gars yi nañ leen patienté xool nu muy demee pour daal di xool ndax soxna Batoor dina mujjee jël xaas wala du ko jël jaa jëf.